njàngat mi ci Alxaaji Malick TV chaque dimanche tey jii ci tàkkusaan gi nga xam ne mi ngi bëgg a roofaloog timis gi njàngat mu leer stade bi ngeen di gis mooy fi nga xam ne fa la bi di am classico boo xam ni classico plus la ndax ab final lay doon ci arabi Saoudi fukki victoire ak ñett wala fukki trophée ak ñett moom la ki nga xam ne ab Barcelone am na ko Real am fukki trophée ak ñaar muy wane ni Barcelone mu ëpp ay trophée Real Madrid ci super coupe d'Espagne moo tax Real Madrid daanaka équipe bu Ligue de champions la teg ci taabal ji euh, pour daje gone Barcelone yi defence bi classique mi euh, nga xam ni ki nga xam ni mooy Militão ak Rudiger Fernand Mendy Carvajal digg militaire bi ki nga xam ni mooy Toni Kroos Camavinga ak Modric ñoo gérer li nga xam ni moo nekk digg militaire bi. kaw gi comme d'habitude Vinicius Junior Karim Moustapha Benzema ak ki nga xam ni mooy Fede Valverde fekk na booba a ah, gar Barcelone yeewu nañ ca jël di waajal ñoom seen final boo xam ni ah, compo officiel bi ñoom yéex nañ ko andi ndax daanaka dañu koy nëbbandi ndax Xavi ak i gaayam bu ngeen xoolee seen i xar kanam ma ngay belli bu baax a baax seen i xar kanam moo ca ne ak confiance boo xam ni ñi ànd ak ki nga xam ni moo nekk doomu espagnol bi di Ansu Fati gis ngeen ko noonu moom it ma ngay am mbégte ci li nga xam ni mooy match bi bi waajal match boo xam ni match la ci biir match yi ñaari équipe yi war cee daje yeneen match yu jàll léegi nii Arsenal fi mu toll nii moog Tottenham euh, Tottenham dañ koo mën a ñaari bal ci dara castel moo dóor Fulham équipe bi nga xam ne mooy Chelsea moom it dóor ki nga xam ne mooy Crystal Palace muy wane ni Newcastle ancien équipe bu demb Ba mi ngi ci njobbaxtalub li nga xam ni mooy championnat Angleterre maanaam à troisième la jël soriwul li nga xam ni mooy Ligue des champions information bi ah, danañ ci dikkaat doomu ki nga xam ni moo nekk Ukraine mi nga xam ne Chelsea jënd na ko lu mat ci téeméeri million d'euros présenté na ko léegi ci stade bi nga xam ni moom la doon footballé